ut euh, sunu gan euh, Babacar Mbaye Ngaraf ñu ngi lay nuyu ma lay fay Georges Dethie di nuyu bu frère Ami Ndiogou di nuyu également waa rajo bi ak waa télé mhm. yow yaay njiital euh, alliance sauver le Sénégal nekk itam coordinateur benen kurel di synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue ci mbënn mi surtout euh, yàgg nga ci yengu sax euh, fan yi euh, ay keur yu bëri ngi tëmb ay quartier yu bëri ñu ngi teum ci ndox mi ba tax ñu déclencher li di plan Orsec bi ministre de l'intérieur demoon ci banlieue ba ci keur Massar barki démb liggéey gi door na seet ne seetlu nañ ni ci national 1 bi en tout cas coupé woon na oto yaa fay jaaraat est-ce que ci bill banlieue plan Orsec boobee ñu déclencher commencé commencé na am njeexital aujourd'hui maa ngi d'abord euh, nuyu la yow bi di wax da nga baax rek ndax muy yow di votre consoeur Astou ci bo amul lu ñu mën a wax ci inondation en Barth yéen mu leen ko wax. <laughs> loolu yàgg na. Ah, maa ngi fàttali ba ngeen fay ñëw ay 2005 2006 fu ngeen duggul amul waaye it ma profité ci occasion ma xamal leen ni aussi la ngeen fa bàyyi woon. Hmm. moo fa ne ba tey pour wàññi ne lajj nga xam ne nguur ko lajj na ko ak yamaa dëkk ci nekk. balaa may développé dama bëgg sax may ma ma profité seen antenne pour massawu coono waa banlieue bi yëpp Sénégal entier mais banlieue particulièrement di profité également ci sa occasion bi pour wax sénégalais yëpp nañu jug taxaw pour au moins aujourd'hui dafa am cinq jeunes de Tivaouane Diacksao yoo xam ne dañ doon manifester keroog ci su ndox yi ñu jàpp leen war leen déférer tey ji présenté au procureur mu nekk nag coono ak naqar ak yabaate gu jéggi dayoo jàpp naan tey jii si réew mi soo ko am ñu war a jàpp warta génn Omar Gueye le ministre ak la ministre Serigne Mbaye Thiam. waaw ah ndax lan ndax ñu nga xam ni dañu na jox suñu xaalis yu bëree bëri ñu sànni ko ci poubelle bi liggéey lañu dara ba sëpp askan bi tey ci ay coono askan bi jóg di wane seen naqar nga jàpp leen tëj leen yabaate mënu koo paase. la tax mu gën a garaaw da ngay xool nit bu nekk ci coono parce que dañuy wax rek. kër mi li ñu xam mooy au plan économique jeexital bi je prends un exemple très simple ñu ci bari suñu côté dañu nekk dans le secteur de l' informel ay nit la ñoo xam ni jigéen ñi nga xam dañuy dem ba nekk mag te am jom lool duñ toog seen kër yaa caaral dañuy jaay lu ëpp ci seen bunt kër bu jël exemple benn famille la famille Sall dañuy jëw maire bi dafay jaay ndékki ci buntu kër gi bu guddee mu jaay reer parce que borom kër gi wàññeeku na ben kenn ci boy yi menuisier la yore ci buntu kër gënalé fa nu jàkkaarlool fa la ben boy bi tek ki mum tuti li defee coiffe li wato da ci ben maram dafa salon coiffe coiffe di wat boy bu ñu wat la 300 bu dem ak wat la 500 ndox mi ñew nangu sen koñ mer bi jaayatul ndek jaayatul reer atelier menuisier ba tëj na ki don jox ki don def euh, di wat ñukay fay mootu ko parce que ndox mi nangu na fofu yépp kon boko setlo les trois principales sources de revenus tay jii fermé wonu nañu ndax inondation moko indi dama jox exemple yi boobu rek ñooñu tay ji imagine ta tay kenn ci ñoom bokkoon ñuy manifester nga japp ko ni ko rap jamono yu wax yow ni les quartiers Tivaouane Diacksao les gens ñi def ay quête pour xol luñu jëlé avocat yoyé ni ñu ko defee tay ji

c'est-à-dire l'évaluation dañ ko def par rapport aux bi fixé mais par rapport également aux sommes faramineuses dépensées. mais Furanta tëmb di inondé inondétul loolu rek déjà évolution le progrès la boo xamante ne xam nga quartier mu lim xam nga kenn waxul dara amul dama les résultats dañu largement en deçà c'est-à-dire dañu disproportionné par rapport ak somme bi ñu sais xam nga tey jii dañu ñëwoon ñu fekk inondation nekk un problème bu sonal Sénégalais Il mu nekk un phénomène récurrent ma am ay solution conjoncturelle bu ñu fàcc ndax nañ def ay pompage dëkk di fii toxal yenn nit ñi le président Macky Sall l' état du Sénégal lay wax ah hein, daa di ñëw benn instant daal di opté moom pour les solutions radicales daal di ne somme ndaw yi ñuy dépensé au lieu ñu koy dépense chaque fois ñu koy def nañu xool loo xam ne dañu koy def mu jeex une bonne fois pour tout bu ñu ko fàtte ah hein, c' est ça l' objectif plan national. ñu jaay ñu sa plan à 767 milliards ni ci 10 ans lañ ko koy écoulé tey jii 9 années sur 10 dem nañu. 511 milliards c'est les 767 sont dépassés pour quel résultat c'est ça la question. mais mais xam nga am li nga ne def nañ ko li am sur le terrain madame ouvrages pourquoi ouvrage ça ne marche pas. justement c'est la question que l'on doit poser à Kounkandé parce que le ministre moo taxaw fi je bis moo xam ko de Omar Gueye moo taxaw ca Kër Massar télé émission baa fi, fii ko sànq télé bi mu ni ouvrage yi dinañ opérationnel opérationnel à 98% au delà du plan national aussi projet 15 milliards pour le d'urgence d'urgence kon a 15 milliards il y a les opérations opérationnelles à 98% assurer Sénégalais que ni de en tout cas ci mais votre confrère Pape fii pour que vous puissiez vous wàcc na bi nga xam ne nawet bi jege si ne Diba moo ñu woo laaj suñu ñu wéj loolu Omar Gueye wax lancé un appel ni ko na communication avec ak la mégalomanie ak la concanderie nous ñëw dugg si les actions pratiques parce que dara mun ta tey banlieue bi ta surtout Kër Massar bu fekkee ni liggéey bi fi toll fa la mais ñu yamuñu ci on avait même lancé un appel bi président Macky Sall def tournée économique ñu rafetlu ko lool di ko ne waaye doon na tournée sociale ñëw dans la banlieue ici surtout que nag bi nga ñëw banlieue d'inondation yi da nga taxaw Kër Massar nga programmer la départementalisation à l'époque on avait dit départementalisation oui mais exondation d'abord problème Kër Massar du problème département mais nañ ko nañ fexe fenn d'abord. daf mel ni mbirum politique la boo xoolee tey jii départemental lu mu indil waa Kër Massar daanaka mbirum politique rek la woon. amul benn sens ak benn jariñ saa nga gis nga réew mi faaw ñu wàññi politique bi tey nag liggéey mais bu fekkee par exemple da ngay tegu ci kaw woo ñi la fal yëpp ñu ñi ah, ngay liggéey ndool xamaloo leen ni ku ñu nekk fa ma la teg soo amul résultat ma dàq la waaye nga leen ku perte sa base politique ma dàq la sa à dire dans ce pays les gens se croient à tout tant qu'ils gardent leur base politique mais xam nga ne échec ak carence ak instance résultat mun taw weesu lii xew ci wàllu inondation yi tey mais ba léegi tontuwoo sama laaj bi le problème c'est pas seulement Kër Massar amna ay ouvrage nga xam def nañ ko ci yenn koñu banlieue bi euh, on voit que euh, le problème de Dalifort c'est presque résolu ndox amatu fa mais yeneen ouvrage yi nga xamantene ne ñoom la ñu ci biir banlieue ba pourquoi euh, fonctionner moom tax mbir c'est pas seulement que Massar mais mom la wax ça sa affaire c'est que da ko teunk ci keur Massar dama jël exemple keur Massar mais yeneen yi mais question bi question bi nga posé dafa walé tontu bopam mhm. xam nga problème bi sa ji tey waxuma ay nak ay mission d'information l'Assemblée nationale bi xam dafa nekkal peuple bi nous war ouvrir nous devons une commission d'enquête parlementaire parce qu'il y a une différence hein, entre une mission d'information et une commission d'enquête parlementaire. bien sûr ici les soupçons de faits délictuels ici des soupçons de surfacturation sont réels parce que man bokk naa ci c' est des Sénégal ba mu laajoon la ànd bi. surfacturation nan la amé yoy ngay wax no soupçon yi ci nan. dañ ko gisul xam nga xam nga dafa am encore une fois li ngay dépensé bu fekkee résultat yi dafa mingo li nga dépensé war nañ ko mën a muñ mais xam nga ne Sénégal laa gis réew boo xam ne dañuy au lieu ñu bàkkoo résultat dañuy bàkkoo dépense dépensé nañ 511 milliards loolu du wax ji de wax ji ba da nga wax ni réglé nañ ko ak 90 vingt dix pour cent réglé nañ ko ak quatre pour cent mais fi wax nañu bàkkoo dépense bi ça dire daal dépensé nañ temps seen yoon newu ci donc bref. kon yow question bi nga posé commission d'enquête parlementaire lañ war il faut impérativement une commission d'enquête parlementaire te le président Macky Sall ay temps laajoon nañ ko fi ñun dañu bëgg audit du plan décennal mu jox assemblée mission d'information wax nga loolu audit la ñu bëgg audit sans complaisance parce que gëm nañu ni inondation yi encore une fois li ñu wax moo ki dem demu ci ndax bu ki demoon tamit résultat du toll ni ñu wax di dëgg rek autrement dit il faut gars yi xam ne xaalis bi dépensé du xaalis bu nu for xaalis bu Sénégalais yi liggéey la mu nekk seen poche wala bokk bu jox ngir Sénégalais yi balaa muy ba am moo naqari rek mooy dañuy lancer plan Orsec plan Orfeo wax nga dëgg mooy organisation de secours. c' est parce que on en avait assez que Sénégal yi d' accord woon casque fort dinañ jël 767 milliards d' accord dootuñu kenn wax ne waxi plan Orsec. wax de. waaye nag loo xam da ko seen muy mais loolu si faw ñu koy sóoraale ndax ndox mi du nit ñee koy wàcce li yàlla di def kenn mënu ci dara. d' accord maa ngi sóoraale déedéet bu ngeen bu ñu tooñ yàlla de. yàlla ndox mi la indi waaye inondation de yàlla mooy fa laa jëm. waaw sunu borom. yàlla ndox mi la indi waaye indi inondation de. mais ndox yi indi inondation. déedéet on l'a vu. ah lu indi ndox ndox bu bëree indi ndox bu bëri indi inondation. sama dëgg sama dëgg la rek ëpp doole nekk inondation jamono ji ay Allemagne ak Belgique ak yeneen. sama dëgg la rek ñu waxtaan. xam nga ñëpp ñu ñëw tey jii bi ñu jamono daa am nu ñu ñëwee ngeen bal ci kàddu gi. solo ñu woon yëre waaw externe yu ko naan yàlla ji bindee noonu nañ ko bàyyi noonu defuñu ko. bokkul parce suñu borom en suñu borom may na xel doomu aadama may ko possibilité mu benn instant muy jëli yëre ndëbb ay cëram may ko instant ja may ko te xam-xam bu mu créer tey jii su tàngee mu wut lu seddal yaramam. mais tubaab bi kenn gënal xarañ nga wax ni bi kenn gënal xarañ nga toll rek ingénieur rek xam-xam am nañ ko mais teewul ñu dundi loolu mooy naxaate bi nag ndox may taw ca yooyu réew tawul suñu réew mi xam nga tey jii bërbatër wala si ndax lañ koy woowee la mu taw Fatick moo ëpp la mu taw Tennessee baal ma wax rek te te si ñaar fukki nit ak benn dee nañ ca. waaw dama déglu dama comprendre loolu wax ñu ne bërëbëtër ñu koy wax si ndax bis bu duma jasit bu kenn naw njàmbaarug bërëbëtër nañu yéemu kañ ci yaafusu jasit Sénégal dafa tawul taw yi passé quatre-vingt-quatre millimètres la réew may wax day taw ay centaine de millimètres. ce qui n'est pas le cadre de, notre pays. on m'a dit 140 mm. mais ren laa wax ren moom dig passé quelque chose mais justement c'est pour faire face à ces fortes pluies que le Sénégal a accepté encore une fois de sortir 767 milliards. Mm-hmm. on n'a pas déboursé kenn waxul 767 milliards hein, pour faire face à des plus de 10 mètres 15 à 50. suy qui est a yenn somme yi dañ ko parce que xamoon dañuy xaar ay taw yu ngand. mais qu'on me dise quand même dañu génne somme bi toll mais sept cent cent doo jaaxaande wala neen ko am ah, man ah, aw ma ko man loolu du lu ndaw de dañ ko génne pour daal ay pluie yu ay dix millimètres ay quinze millimètres c'est pas ça. mais boo xoolee mais ah, xaalis boobu ndaw na de parce que ay milliards milliards sept cent soixante-six xëy nga ci mais. waaw ma ni réglewul problème bi de. ah bu leen encouragé gars yi ñu sàcc suñu xaalis bi. dama ne yéen tamit ni nga gisee mbir yi léegi xaalis bëri na rek. non yow yow yow yaa teg tuuba kenn encouragé wul kenn. xam nga lan laay bañ ñu néewal doole 760 milliards ñun wax ñu ko de dañoo fal ay nit dénk leen suñu bopp ñoom ñoo dem ak ay techniciens xool ba xoolaat jàpp ni pour inondation yi jeex une bonne fois pour toutes au Sénégal il nous un plan décennal waxuma ko de ñu ne la ñaata la.

ngeen def seen xayma yéen ba ne seen direction jàpp nañu suñu amee mille francs dinañu def ñu def lépp direction bi deful dara yéen yéen a calculé de état bi ñoo ni pour inondation yi jeex au Sénégal mën nañ ko ci 10 ans waaye nañ am 767 milliards bu ñu woon 10 ñu génne ñu d'accord ko ñoom ñoo ko wax. yoo xam ne ñu xaalis contrat moral lañ am suñu digganteek ñoom muy lan inondation yi na fi jeex.

jël moyens yu jox la seetaan la ak say stratégie ëllëg bu ñu évaluer que te résultat wala lañ la ñu évaluer su ma Georgine Babacar dama lay yóbbu Touba ak sama oto waaye dama ko yóbbu da may fay cent mille ci cent mille après nag di nga ma jox ma jënd di nga ma jox yeneen dix mille francs argent de poche exemple rek ma jox ko cent mille francs bu mu yóbbu mu Touba ñu dem mu ne ma naa la yóbbu fii fii fii fii deux heures temps ma def une heure trente wala une heure cinquante minutes. jëm caaro yi maanaam man noppalaa dawal naa ba caaro yi daf maa yëpp cent franc du woon pour caaro yi li ñu dépense dama ne woon du pour ñu ne rek la ne ñoo ñetti carte ñeenti carte balaa ma am lu ma naqari dëgg dëgg dëgg rek ma dégg le ministre Oumar naan way ay nument di jeex na et puis am nga sax loo wax lu garaaw loo xam ne dañu ci war a xel ñu ñëpp il est extrêmement dangereux que l'on veuille aujourd'hui limiter les inondations à Kër Massar c'est même manquer de respect aux autres demal tey jii yëmbal nord comme demal quartier Thierry demal demal madinatul demal afia 1 demal afia 5 ginnaaw raay demal ginnaaw raay demal madinatul xiis ga ca Malika demal tey jii Cité Sotrac ñu koy du Dakar seulement que plan plan bi pour Ndakaaru pour tout le Sénégal loolu na moo gën a garaaw léegi malheureusement gars yi dañuy fexe ba nguur gi bëgg ji bëgg woon Sénégal yi c'est que Massar tout simplement il faut encore une fois qu'on revienne à la raison plan ORSEC organisateur de secours la nga xam léegi lu muy tekki Sénégal ma boo ko hors H-O-R-S, Très d'union sec. C'est-à-dire c'est voilà, voilà, les gens, ils travaillent pour maintenir le Sénégal dans un état hors sec. Sec, tout ça. Pour que chaque fois, effectivement, plan hors sec, mon Khalis Guéne. C'est pas je me fais comprendre. Comme hors sec, mon organisation de secours. Mhm. Dafa lañu travailler pour maintenir le Sénégal ci hors sec. Muy toy toujours. Muy toy toujours rek. En tout cas, bu na nek dal toujours rek bu bu musa wo. Na nek hors sec. Bu bu sec mën nañu koo jàppee beneen or bi itam. <laughs> wala beneen wala su beneen or ba tey ku ñu génne or ak léegi lu ciy pexe yow seen proposition lan nga gis ne. moom la ñu def nga xamante ne mooy saafara mbënd président de la république na organiser benn audit sans complaisance ci wàllu plan décennal bi les 15 milliards qui ont été dégagés Omar Gueye ma ko man waxuma ko de dépassé nañ ko mu ne sax entreprise yi waroon liggéey 12 mois liggéey nañ six mois mais c'est pas moi qui l'ai dit nous avons 15 milliards de fan la nationale bu faites qu'elle nekk pour le peuple sénégalais représentant na organiser une commission d'enquête parlementaire parce qu'effectivement des des soupçons de surfacturation de délit mais sont réels parce que sentiruñu wax Nous avons moom la ñuy dépassé sentiruñu ko. bañ a bañ ñi sur na kon la déjà mauvaise gestion ce n'est pas que surfacturation. non dama jox non xam wax benn exemple ah, wax rek. ci boobu la ci boobu wax mooy Kër Massar rek jël Kër mhm. sa plan dañoo génne waat encore 15 milliards dans le de projet 2. Mhm. waaw ñu ne a taa ngir yàlla. a dem. xaalis bi dañoo jàpp ni demul foofu te la koy mën a mooy encore ko gëstu te ñu wax ñu nag le ministre Serigne Mbaye moom moo yore assainissement yore eau. Mhm. ba léegi mu Omar Gueye la ñu il parle dans le cadre projet 2. Serigne Mbaye Thiam fan la nekk waaye waaye nañ jox respect ba fi jaar sew réeree parrain la certes waaye aussi moom may parrain wu sénégalais parce que ci ci ci wàllu assainissement dëkk bi lóor kenn gisul Serigne Mbaye Thiam yabaate mënta passé lu mel noonu waaye li ko wan ni mooy xamal dafa am des gens yoo xam ne dañu am garantie xam ni quel que soit leur insuffisance de résultat quel que soit leur carence il risque absolument rien tant qu'il assure à Macky Sall une base politique c'est extrêmement dangereux il faut état ak parti quand même wala jërëjëf Babacar Mbaye Ngaraf c'est à moi de vous remercier sauver le Sénégal coordinateur synergie des acteurs pour l'assainissement de la banlieue El